Euh, démb euh, dañ doon xaar président wax il a si bien compris que lui-même a précisé que waxtu wax bi jot na et que dina dina wax euh, mu am ñu bari sénégalais yu bari yoo xam ne en tout cas même bu dee mënuñu ko natt mais ñi nga xam ne ils avaient voté le texte de référendum ak ñu bari ñeneen ñoo xam ne àddu nañu jàpp nañu ne président dafa war a génn par la grande porte et que y un avenir radieux qui l'attend. Et le bilan du président Sall euh, c'est-à-dire mosuñu mosuma gis en tout cas un président bu nekk en exercice ñu bari bi am quasi unanimité ne il a fait du bon boulot mais mu am ñoo xam ne dañ jàpp ne il s'accroche encore au au pouvoir que ay nitam ñu ngi koy pousse ci loolu et que moom tamit mu ngi hésiter pour pour pour pour génn yow d'abord dans votre majorité euh, vous êtes de quel vous êtes côté vous pensez que le président Sall doit partir euh, qu'il doit sortir par la grande porte ou est-ce que vous pensez qu'il doit comme le comme vous le dites faire prévaloir ses droits à une troisième candidature bon d'abord je ne répondrai pas peut-être à la que question ni nga ma ko laajee mais damay jël benn pan boo jël bi nga waxee ni am nañu xalaat ni Macky Sall day accroché au pouvoir bon bref c'est pour ceux qui pensent que <coughs> Macky Sall est un est un pouvoiriste fa gëm pouvoir euh, may mun a dama lay waxal li nga xamante ni du affaire ay DG ANAMO du affaire li ma dund ci nit ki te xam ko benn bi mën naa ko bokk ak Sénégalais yëpp parce que ñëpp ko gis Macky Sall est le premier chef d'État africain Afrique moom rekk fi mus a gagné présidentiel ñu jox ko caabi palais bi mu bàyyi fa palais bi dëkk këram tu me diras c'est rien. ou bien quelqu'un non attendez mais dama Paul Biya ne réside pas au loolu moom. waaw mais non déedéet déet waaw mais non da bàyyi may mun a. sama wax ji mënoo koo jaxase. <laughs> biyaa non waaw mais même waaw mais non mais même même wax la xam même xamoon même aussi nag da ngay déglu dama ni biyaa du benn yow yal na yàlla jox biyaa yow. na biyaa jël <laughs> nañu yàlla musal ci biyaa mais faut pas déconner yow on parle de Macky Sall ngay wax biyaa. non mais da nga ne da nga ne c'est dama lay wax ni la dama lay wax la waaw mais dama lay wax. dans la résidence du président. cest à résidence bi nga xamante ni président moo ko moom mi ngi mel ni Popenguine man waxuma la Popenguine de dama ni la kii dafa jël réew mi ñu jox ko ko dénk ko ko ni ko palais baa ngi nii man ci li ma jàpp li ma analyser man nag peut-être li ma def sociologie philosophie tax man les sciences sociales m'intéressent damay analyser des faits ki mën a jël loolu bàyyi fa loolu yépp ñëw dëkk këram mbir moom kër gi mu nekkee woon opposant di wàcc di dem di ñëw avec sa famille kooku wan na boppam wan nañu ci li ma gis wan na njabootam ni fee du lii du luy sax donc soxlool ma ci. mais d'autres Sénégalais vous diront que waroon na dëkk pale jël en charge toute la symbolique de cette demeure historique. waaw ouais, mais waaw ouais, mais dama lay wax yi ngay wax noonu ça c'est des symboles man dama ça c'est des c'est des loolu loolu loolu d'autres te diront d'autres société bi li ñu doon wax la li Youssou Ndour di way góor gi la. boo defee lii ñu ni la mais dama lay wax li nga xam kenn du ko werante muy benn mooy dina benn deuxièmement xëy na partage wu ma kook ñu bari mooy au référendum de 2016 dama jiite la délégation de l'association nationale des élus départementaux ñu ñëw doon ko wax ni ko dañuy jàppale pour voter oui bi délégation bi dem ñu taxaw c'est la première fois may wax li nga xamante ni dama ko wax ak président directement ma ne ko mais président nag euh, en face on a des gens parce que gis nga coalition bi taxawoon di woote non c'est la plus forte coalition bu ma mus xam en termes de poids ma ni ko mais euh, ñii mbaat il ñu dool dolli taxawaay de mu ne Malick il faut vous battre sur le terrain parce que man si le non l'emporte demain je rends ma démission je fais une déclaration à la nation je rends ma démission. il vous a dit xam nga ki mën a wax loolu man waxuma ak Sall lu muy wax lu muy wax ak yooyu comme je dis on attend mais dama ni la képp ku nga xamante ni da ngay analyser des faits waxuma la nag xam nga Sénégal aussi nit boo demee ba nga ni sa hymne mooy maanaam sa slogan mooy lu naqari Macky Sall neex na lu neex Macky Sall naqari na ma waxuma ñooñu ñi analyser ay faits laay wax. nit bu ma la gisee nga def loolu wax xaw ma lu muy wax de mais dama ni la bu ñu ko analyse bu ñu ko bëggee duural bu ñu ko bëggee gànkal bu ñu bëggee wax ni c'est un homme qui s'accroche au pouvoir man ci foofu laa toll dinaa indi ñaar ñi nga xamante ni ku ko dégg di nga xam ni kii accroché wul au pouvoir beneen élément bi nag mooy dine que li ma xam te yaakaar ko te gëm ko mooy président xawma lu muy wax mais li muy war a wax dépendrul ci benn pression parce que li ma am na lu ma jot a xam ci nit ki dépendrul ci pression wu F24 dépendrul sax ci yéene ak yéene vraiment bi suñu yenn partisans yi ak ñun suñu parti ak ñun ñuy wax ni mooy suñu candidat gis nga ci ñaar yooyu yëpp ak beneen leneen lu ñu mën ci doon man nit ki ma xam ci tuuti xaw ma ko nag ba mu jeex il s'est fait une idée il s'est fait une réponse te jàpp naa ni la mu gëm te xalaat ko du contexte yi fi am deux ou trois ans yi moom moo koy changé lan lay doon nag je ne sais pas c'est à lui seul et à lui seul d'assumer. cette déclaration là on va en reparler def nga politique de haut niveau. def na parce que da nga vous venez de faire de la politique parce que bu président ne du dem dañuy génnewaat sa déclaration. waaw ouais, mais xam nga mais may mun a. xam nga man cest dire je tous du bois wala li xeer la <laughs> je touche du bois boobu ba léegi maa ngi politique. maa ngi wax parce que man du ma mer di xam man dafa am lu may yox leen man mere wu ma Ablaye Wade ànd ak Macky Sall c'est-à-dire dama lay expliquer. doo mer ngembu. du ma mer ngembu. je le côtoie Macky Sall de manière ininterrompue depuis dix-huit ans ininterrompue dakkul musuma koo mere ba c'est vrai man nit di nga di nga loolu c'est trop dit mais je veux dire que ni. musuma dama wax ne no xam nga relation dama lay bëgg damay bëgg relativiser leen dama ni leen nit koo gis ci àdduna mus nga. am lu la naqari ci moom comme yow ni nga ko musa amee euh, ci sa boroom kër keneen am ko ci rakkam keneen am ko ci day am mais dama la wax. donc il arrive nga am lu la naqari ci Macky Sall mhm. bu baax a dama ni la musuma gedd ñu jëli ma. am na ci ñi nga xamante ni gedd nañ ñu jëli leen musuñu maa fay salaire d'un musuma koo Macky Sall musuma koo fen musuma koo fenal musuma koo jëw ñett yooyu musuma koo defal suñu ànd ñaar rek laa ci bañ. mu xeeb ma wala mu jéppi ma te gis nga may mun a nit xeeb la wala mu jéppi la loolu yaa koy def sa bopp parce que nit euh, man na ma mère disait que ñàkk du yàq ànd ñàkk jomay yàq ànd te nit bu ngeen àndee li nga mën yëpp yow fexeel ba di ko defal ci taxawaay loo xam ci lu baax la nga defal ko leneen li boo ko defalee yëpp nag da koy ñeme tamit